Ouais, ouais, ouais. La vie est belle. La vie est belle. Les Parisiens sont là. Ouais. Avant, tu viens ou pas Viens. Les Parisiens sont là. On est là, <laughs> on est là. La vie est belle. Et eh, mon gars je suis naa leen xam naa ni nam ngeen Kaliphone ñëpp a ngi laaj Kaliphone fu mu Californie. Kaliphone si lu mu dugg Kaliphone ci tunnel yi nee naa ma benn jot rawatina nag toog si internet bi. Du tontu ay bojo bojo Moi, je pas ce temps je vis ma vie on est venu en vacances voilà, on est venu et je profite Je voilà. pas le temps de répondre à des dandouilles je <laughs> n'ai pas le temps de répondre à des mécontents je <laughs> pas le temps de répondre à des à des à des euh, ils sont jaloux. voici mes garbats. ah ouais ah mes nièces. ça c'est Awa. Awa la parisienne. Ah, elle est venue en vacances, ça fait, elle est venue depuis combien de temps Là, ça fait un mois. Depuis un mois, toi, tu es venu depuis trois mois. Non, avec maman, ça fait trois mois. Oui, trois mois. Oui, hein Ça, c'est... Omar. Omar. C'est ma grande sœur, moi, c'est Niaï. Nous, Paris, le Nutudo, Yaro, Magge. Nous avons fait trois mois. Mais quel lidjentoul, nous avons fait trois mois. Awa, tu es là depuis combien de temps Un mois. Un mois. kenn lijjantiwul awa lu tax ngay yàgg Kaliphone def rek un mois dix jours ngeen commencé takk rajo yi Kaliphone mënul dellu Paris kalifon dafa dee dootul dem Paris waaw mais garaawul <laughs> c'est quoi Paris ah jëna ba mi le nara c'est quoi Paris mais man Sénégal laa am ah ñaata millions de Sénégalais lañu 17 millions presque 16 million Sénégalais yëpp ñu ngi biir Sénégal génnuñu waaw man bu ma bokkee si 16 million yooyu ana defet bi waa Sonko yi takk rajo bi dugg si internet bi ci TikTok bi ci YouTube bi di wax loo xamante ni dara leeru leen si ah léegi comme mënumaa dellu Paris alhamdulilahi rabil alamin jënd naa càq-càq ma def càq-càq ah <laughs> sama gars yi comme réew mee ngi nii réew mee ngi émerger réew mee ngi tarkalla jënd naa càq-càq bu ko defee ma daal di càq Comme ku bëgg càq-càq wool Kalifone Sall chat chat a ah Omar maintenant comme je peux plus retourner en France après si vous partez en France vous me saluez Emmanuel Macron et vous me faites un coucou à la place de la République Dina nam Barbès Dina nam Château Rouge nam euh, Champs-Élysées Tour Eiffel après quand vous partez vous allez faire des photos Tour Eiffel vous m'envoyez. Parce que je vais avoir nostalgie de Tourafel. Parce que avant je restais dans les mbeds de Tourafel. C'est ici Tourafel. C'est ici Place de l'Obélisque pour France. C'est ici Sans-Élysées Étoile. Mais maintenant, je ne peux plus retourner en France. Mais je suis fier de rester ici, au Sénégal, Rawatinanak. Je reste ici à, à dans le banlieue. Là, je suis là avec mon tchak-tchak exactement ah Omar. ça c'est mon càq-càq bépp nit bu une commande bu bëgg a dem feneen ak fenen ak fenen. bul wooti ben càq-càq càq-càq a ngi nii président Macky la woote léegi nag toog si réew mi liggéey dara gënu ko neex ah Omar Eva si vous rentrez après vous me faire des photos hein. et comment on parle les les zalous les mécontents là les haters les haters les haters là c'est quoi votre problème <laughs> Ouais, faut pas vous calculer, vous, êtes trop jaloux. Ah ouais Vous voulez pas laisser avancer les gens. Ah ouais Quand ils réussissent. Ah vous, ah vous voulez pas laisser les gens. Ah ouais, Jaloux. Euh, ce qui, euh, ce qui me jahal trop, eux ils sont partis en France, l'autre sont aux États-Unis, les autres en Angleterre. Ils disent que Calibonatul del France. On dirait que France, ça vous appartient. On dirait que Ousmane Sonko, mon, mon France on dirait que wa passef ñomom en France ngén tak radio, yi califone mëno déllu califone mais amul problème mënuma déllu garaawul mais millions de sénégalais qui sont fii ci banlieue bi je vais rester avec eux bon toute façon xaar sama càq tchak attendant je sais que je suis en point mort hein, si tu n'as pas mis vitesse non hein attends tiens-moi comme ça Eva ok ouais hein léegi càq-càq bee ngi ni ku soxla courrier buy dem ba Japon <laughs> ku soxla courrier buy dem ba Japon wóol Californie non n'accélère pas je viens d'allumer là ku soxla courrier buy dem ba Japon buy dem ba Maroc bii gaaw na xam ngeen bii moom ah ah, ah? bii gaaw na ah waaw Californie càq-càq bii la wër léegi càq-càq bii nag léegi fépp fu may dem léegi ku am courrier buy dem Grand Yoff buy dem Pikine buy dem Caaroy wol califan mo gën a gaaw càccac da califan président Macky Sall la woté et là je travaille hein je fais du càccac allez je fais un tour même hein allez mets-toi derrière awa nous on revient deux secondes on fait le tour nous allez nous on fait le tour ñoo maa ngi ñëw dama nekk live ta xool bisa gaming rek balaa nga fi ubbi sa gémmiñ bi naanay balaa ngaa dem bëri lan mooy sa problème balaa may dem lu xew lan moo xew ban sërita kan laa jox ñëpp wa wa waa waa internet bi ñu ngi naan Kaliphone dootul France fu mu toll nii maa ngi sama ngam di problème kan ah déet ti sama kii sama sama jarbaat la sama doomu mag la moom nee na jox ma sama charité mane ne ko mais eh, mais si on live là vous criez là moom nee na jox ma sama charité ma ne ko man maa ngi en galère maa ngi bëgg a dellu France mënuma dellu France nga may laaj ay charité. dara ah? ah, kon loolu neex na sama yaay nee na ma dinaa dellu rek kon alhamdulilah moom lañ tuddee sunu yaay. donc mooy loolu laa vie est belle ah. allez li bëriwul. léegi jënd naa càq-càq eh les sama paas donc damay dugalaat. jënd naa càq-càq lii lu mu dee dee benn <laughs> un million la léegi un million mën naa si jënd ñeent moto càq-càq yu deux cinquante mille léegi deux cent cinquante mille ma jënd ñeent moto muy un million du dëkk léegi càq-càq bu ne mën na ma verser journée deux mille francs xam nga càq-càq sax day verser deux mille cinq cent léegi ba mu wutee quatre càq-càq chaque càq jox ma deux cinq cent muy dix mille francs par jour léegi dix mille francs par jour pendant un mois

suis transporteur des tchak tchak <laughs> la vie est belle ah suis un siisu di dee ab un eh, toi tu me donnes mes 200 euros toi tu toi non non non non non non tu me dois tu me dois 235 euros tu me le remets non non non va retirer tu me donnes allez hein je joue pas hein. sinon je vais t'amener à la commissariat bah, bah, tu vas pas yor na sama 235 euros ça ça ça sàcc là. Benda, allez donc toi là tu tiens ici. là là là le téléphone. j'ai mon casque mais soriwuma quoi pas ngeen naan Kali mets ton casque mets ton casque. c'est pour les non ni naan téléphone, amul lu mu de crédit gis nga du live man maay crédit Hein? Kum ton toll téléphone bi ma téye di live iPhone 13 Pro Max beneen a ngi nii xanaa bu ma tout ba Tumurànke. bii nii nii nii nii tey bu ma demoon marché di ko wanteer rek mën naa ko jaayee cinq cent mille bii bii bii bii bu demoon ba tumuranke dugg na ma bii mën naa ko jaay téeméeri junni bii beneen bi may wujoo it même iPhone la mën naa ko jaay téeméeri junni encore muy un million mën naa si jënd yeneen i càq ma am dix càq-càq ma toog si réew mi di liggéey président Macky Sall liggéey la woote di dee man nee naa leen atub ren bu ngeen deewul dootu leen dee vous allez mourir wallahi di ngeen dee man sama ndey dafa liggéey sama keur bay ñi doon wax Kaliphone ba mu ñëwee ki man Dalifort la dëkk gis ngeen Dalifort ci banlieue bi. tiens-moi ça non mets ton téléphone là dans ton poche. ouais tu me tiens on fait un petit tour comme ça les aloula là vont hein? ouais tu tiens le téléphone. ouais comme ça. ouais on est là. et on fait un petit tour. et on fait le tchat tu payes combien tu fais le tchat ou pas. Hein? Bismillah. Hein Allez, on fait un petit tour là, hein Les saloubondés. Allez, vous allez vous allez mourir. Hein? Allez, vous allez dire. Eh, voilà, Bob. Vous allez dire. ana noon yi xanaa di ngeen dee bu ngeen deewul atum ren dootu leen dee fatal ma foofu ma foofu tan ma foofu fatal ma foofu ngeen deewul atub ren dootu leen muriir wóor na yàlla da ngeen a baax rek ah ma ne ko da ngeen a baax rek da ngeen a baax vous allez tous dee c'est pas votre temps moi le contrat des dandouilles non non non non non non non du tout c'est pas le temps de répondre à des dandouilles non non ah.

Thank you. ne di ngeen dee di ngeen dee war na yàlla les salauds vont mourir waaw doomu daaf ghetto doomu xaal pulaar bi waaw ñun président Macky Sall la ñu gëm ñun yéen nekk leen si li ngeen nekk rek waaw yéen nekk leen si li ngeen nekk. wala seen papa Kalifan ñëw na xanaa seen xol métti na benn baax rek dinaa namm Paris ah. na. Sénégal na na weli. na weli. Sénégal na weli. Sénégal na weli. Sénégal na weli. <laughs> <laughs> les noon. c'est pas votre temps <laughs> Sénégal na weeli Sénégal neex na Sénégal na weeli man aw ma jot benn noon maa ngi nii ànd ak sama jarbaat bi ni moom ndeysaan dinañu bi Paris bàyyi ma fi man ma toog fi di càq-càq mais ah <laughs> mais y pas de sous-métier je la càq-càq moto bi mën na càq-càq ou ah oui ah Omar ça peut la càq-càq ou pas càq-càq Gambie càq-càq càq-càq Cap Vert càq-càq Rosso du Sénégal càq-càq ñëpp yéen di ngeen dee vous allez dee yéen yéen ñii di ma soxore di ma añaane di ngeen dee vous allez vi non Californie la tey la xaar ma ñëw dugg Saly Portudal laal foofu piscine bi nii ah, ma commencé di waaw yéen ma gën a xama ah, yow ñun aw ma jot nag toog fii di tontu ay bojo bojo man sama tontu mooy lii sañse ba mu nice def ba mu très bien def ba mu happy kum siisu sa problème la gis naa seen ay vidéo si YouTube bi si TikTok bi ci Facebook bi di reetaan naan Californie na populi retourné en France Macky Sall daf ko piégé waaw man bu doon damaa dem Congo sax la rigueur man Sénégal laa nekk Sénégal sama réew papa ak sama réew yaay sama réew njaboot sama réew famille ñëpp ngi ay millions de sénégalais ñu ngi Sénégal toog man bu ma toogee Sénégal lan la may wàññi <laughs> mais amul solo àdduna lépp teraanga la ah c' est parce que Ousmane Sonko mënul génn dëkk bi ngeen yaakaar Kaliphone mënul génn dëkk bi lu si kanam rawuli gët aw ma jot nag tontu benn bojo bojo du dëgg du di ngeen am victoire si Kaliphone rek après ngeen savourer victoire bi man instant bi gis gen man bu ma amuloon air kuy dellu France ah est ce que air bi war na leen booy bi narta dellu non dama leen di laaj sama gars ni ngeen gisee Kaliphone nii est-ce que booy bi air bi dina dellu wala du dellu booy bi air bi mu amee nii air bi air bi maa ngi dund France fu toll nii maa ngi dund Paris non je vous rek est-ce que air bi won na leen ne que booy bi non non non non non dootul dem Mauritanie yéen da ngeen a baax rek yéen xamu leen sama vie xamu leen sama tur dëgg sax nan la xamu leen sama vi te du ngeen ko mës a xam incha allahu rabbi topp leen TikTok bi nag di wax Facebook bi di wax YouTube bi di wax amul solo.

fier d'être sénégalais te inshallah rabbi sunu borom ba may sak di né sama wërseuk li ak li la dina ci jot bobu yeen ñepp xamul leen won califon dina am ci kaw suuf légui yalla ne califon 2022 di nga def ni di nga def na 2023 di nga def yàlla planifié na lépp fii ba 2035 yalla sunu borom wax na li ma am yeen ngeen ne déedéet yalla califon warul am li parce que ñun la wa passef ñun ñoy borom xoli boni ñun yéene wuñu kalifan am jamm yéene wuñu kalifan am salam. ki sama baat la sama dom mag la sama mag bu jigen ma bok ak ndey ak bay mu ngi ni Paris la juddo yaro màggee daa ñoo vacances def na fi mom 3 mois man ma def rek un mois ngeen di taq radio di ngeen dé allo on y va on fait le tour da mo wara dem sali, euh, je n'ai pas assez de temps hein? allez monte vas-y allez monte après on y va yor naa mais fii ak fii ak naaj beeg yooyu moo tax mais ma doon daw longue distance casque beeg yi fii ah, donc mu ngi noonu ah lii sama sama sama sama sama sama sama sama loisir a ngi nii moto man lii laa gëm waaw lii maa ngi moom du tey tiens moo sax allez comme ça les alula allez siñ tey jël la benn cak sama gars yi bu kenn jëlati cak cak beneen muy yéex bii mooy bu gaaw bi West. Tá bom, né? Vai, tô na frente. らっています Il y a des alous qui ne sont pas contents de moi, c'est normal.

booy dama nekk si yoon nag. dama nekk si yoon salaamaaleykum maire. xoolal fu mu ne nii maa ngi laay. boo ma bëggee gaare loo fii ba ma mu ngi noonu gis nga. amul problème dinaa jaar. na moom ajana. si jàmm kool kool naa ma sama gars yi naa leen si jàmm maa ngi en direct nii sunu champion beeg ni kaaw kaay nii champion de Dalifort kii mooy kaaw sunu mbër bu mag bi ci Dalifort keroog am na combat moom moo daan jeunes yi yëpp toog ay doomu daaf gétoo lanu booy entraîné def dem bëre ji donc jàppale ndaw ñi rawatina yéen autorités yi nekk jërëjëf taxawuñu. on est ensemble jàpp ci bu baax. te nekkul c'est la première fois. nga ko def. ndeysaan kon tam dañ lay ñaanal yàlla. bu uh-huh. baax a baax jaajëf ci jàpp xam ne Dalifor dong moo ñu ñor. dëgg la yow ndam rek. si kaw si kanam sama gars yi. waaw comme ni ma rek après nga tool ma ñu kii a ah, big up naa leen sama gars yi. jaajëf tey allez am allez big sama gars yi naa leen de yéen a ngi dimanche. waaw noonu la ko si kanam. waaw nii dafa demee nag ah waaw booy wër ndax sa waa diwaan bëgg nañ la doxal si biir dëkk bi xool ndax di nga gis nit ku la ne huu ñii ñëpp may bége waaw booy yi lu ñu xewle même bu ma amul dara dama siy jàpp waaw loolu mooy Dalifort ak samay méga moyen jeunes yëpp Dalifort da leen di taxaw te loolu la président Macky Sall woote jàppale leen ndaw ñi ngeen am ak tur gestu leen xale yi wala leen dara wala nekk waaw noonu la fay demee waaw waaw waaw Sall mu ngi fiy def passerelle bu am solo waaw mooy pont bi pour embouteillage bu mu xamante si réew mi waaw mu toll ni ñu ngi croisement Cambérène nii donc mu ngi noonu woo ah. way président Macky Sall liggéey rek lay def dóor waar liggéey waaw ba 2024 di joxaat ko réew mi ba 2029 incha allah way lan la koy demee ku meer sa problème la way ah ale ngora ale yoof ngor ah. Yoff laa jëm Yoff. non loolu loolu loolu du problème loolu du problème. dawal dawal dawal dawal dawal lekk. bàyyi wax ji. eh wala Boges. booy yéen da ngeen di baali wala fu ngeen jëm yéen. eh waaw. eh ziare naa leen. eh big up. jaay sama gars yi. ndeysaan ah gars yi si autoroute bi sax dañ may gis.

waaw dëkk bi bu ngeen toogee naan dëkk bi dafa dëgër xaw lan ngeen bëgg dëkk bu nekk en chantier dëkk bi di avancé péage nekk nii croisement Cambérène président Macky de fi dafay travaux donc gars je vous dis au revoir dinaa ñëwaat nag ak samay caravage ñun président Macky Sall lañu gëm moom la ñuy taxaw moom la ñuy jàppale leen bàyyi nag nu mu leen di France ay eh, waaye bu ma dewlul France te maa ngi fii sama Sénégal di ajana di dund happiness luy France luy France ñun France jombuñu Amérique jombuñu ay doomu aadama lañu te mala yi demuñu France nit yay dem France ah am leen jàmm aw ma jot nag di tontu benn kaña liggéey lañ ma sant ci liggéey boobu laa nekk incha allah rabbi beneen live wane réalisation son excellence monsieur le président de la république lépp lu mu def biir Sénégal dinaa leen ko won ngeen di koy gis bu ko defee kenn dootul toog naan Kaliphone liggéeyul ale yi nekk leen si jàmm ba beneen live incha allahu rabbi jaa ngeen jëf Kaliphone vous aime au revoir et bon dimanche ma ñëw dugg Saly Portudal daal di fël fëlaat